Seydou Sow maa ngi lay nuyu maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. voilà Seydou Sow nga nekk secrétaire exécutif bu association des écrivains du Sénégal euh, déjà ci yaatal dinaa la laaj jafe-jafe yi nga xamante ni écrivain yi dañ koy jànkoonteel fii ci Sénégal. d'abord maa ngi leen di nuyu seen mboolem di auditeur te di jéggal ci ñoom xam ngeen pël bu bëgg xuus ci wolof. Mm. dafay xaw jafe lool ci ci ñun. donc ñu ñu xamee ko noonu euh, que suñu làmmiñ miinul. waxu Kocc Barma mais dañ ci jël incha allah rabbi jafe-jafewu livre yi mooy jafe-jafe ñi nga xam ne nii ñun ñi nga xam ñoo nekk fii ci Afrique am nañ ci jafe yu bëri ndaxte dañuy bind ci làmmiñ boo xam ne di suñu làmmiñ làmmiñu euh, ñi nga xam ne ñi ñoom la ñuy waxtaanal mooy suñu askan wi ñoom seen làmmiñ ak làmmiñ bu ñu bindee wuute na parce que ñu ngi bindee ci français mbaa ci anglais ñoom ñu ngi ci jàngee ci waxee ci beneen làmmiñ donc xam nga loolu day am jafe-jafe ci diggante ñaar yooyu ñaareel bi dañuy wax ne ñun yàgg bu ñëwee ci euh, jamono libre temps bu njëkk suñuy papa suñuy maam ñoom ay ci ci ci ay ay ay ay ay euh, li ñuy wax li ay griots yi ñoom ñoo doon seen wax seen kàddu maanaam euh, ñi nga xam ne ki ñooy mbandkat yi ñoom ñooy griots yi ñoom ñoo doon wasaar wax wax bi mais tey ji nag lañuy dugg ci mbirum bind yàggul lool loolu tamit da am problème day day indi jafe-jafe ñetteel bi mooy suñu téere tamit pour ñu xàmmee leen ràññee leen bu baax a baax il faut ñu am ñoo xam ne ne ñoom ñoo xam mbind nan lay tëddee mbind nan lay baaxee mbind nan lay demee ñu waxtaan ci livre bi wax ne livre bi baax na waxa wasaare loolu ba ci askan bi xam ne livre bi kat génn na baax na loolu amuñu ko eh, tamit ay ay ay jumtukaay yu bëri des na ci livre bi maanaam eh, ci wàllu rajo bi wàllu télévision bi wàllu journal yi pour ñu waxtaan ci ab livre day jafe-jafe lool ci ñun loolu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xam ne mooy tax ba livre bi du mun a am yaatuwaay bu mu am bu mun a am bi ci biir askan bi mais ñu ngi ci ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi ciy xeex la par xeex la ñu ngi ciy góorgóorlu te di nga gis ne am na hôtel yu bëri yu mag yoo xam ne fës nañu suñu waxee tey ji Mariama Ba ñëpp xam nañ ko suñu waxee tey ji Semi Ousmane ñëpp xam nañ ko suñu waxee Amine Sow Fall tamit ñëpp xam nañ ko loolu mu ngi ñëw ndànk-ndànk Euh, déjà fi ñu toll nii ñu ngi wax wàllum numérisation euh, du livre euh, maanaam nit ñi di ko ñu koy def ci internet bi wala ñu koy mën a lire ci portable yi wala ordinateur yi lu baax la mais lan mooy côté bu baax bu numérisation bi yéen bindkat yi ak tamit gàllankoor yi nga xam ni peut-être mën na ko andi. xam nga libération euh, mooy jumtukaay yu bees yoo xam ne ne xam-xam ak xelu nit moo ko indi léegi ci biir téere bi maanaam téere bi nga xam ne bi dañ ko doon jël mu nekk kayit dong nga koy jàngee ci kayit dañ ko soppali léegi def ko ab mbind bu nekk ci biir internet nga xam ne mën nga ko jàngee fu la neexee loolu lu baax la parce que tey ji doo mënoo jël fukki téere soo ko bëggoon yóbbaale ngay dem maanaam ngay tukki nga jël fukki téere dafay diis sa say bagage te doo ko mën a def xëy da ngay jël benn téere wala ñaar mais léegi ci jumtukaayu xarañ yooyu léegi mun nga jël lu téere toll ni junni livre def ko ci sa bibliothèque ci biir portable nga ànd ak moom te du du la xatal du la diisal saa yoo bëggee livre livre boo bëgg a a jàng di nga ko jàng parce que mu ngi seen bibliothèque numérique kon lu baax la lu am solo la parce que day gën a mun a wasaare mbind mi ak jàng mi ak euh, maanaam euh, xam-xam bi mais ñun. day daanaka soo bëgguñ ci lu baax a baax soo gisee ci biir Afrique amagul euh, ay espace yoo xam ne ñu koy traité amagul amagul yëngu yëngutu boo xam ne ne day euh, bar ci biir mbir moom ñu ngi xaw a euh, yu tuuti lañ ciy demagum mais war nañ ci egg pour bañ a mun a raté rendez-vous boobu tamit parce que li wóor ba wóor livre numérique ak livre audio suba suba dañu dinañu gën a fës ci biir ci biir askan wi du ñu dindi gaa livre papier bi ñu ko dindi duñ ko dindi parce que livre papier am na ñoo xam ne dañu bëgg téye livre bi nga xam day am contact li ñuy wax contact physique ak livre bi am ñoo xam ne dañu bëgg loolu mais terewut livre numérique dina am dooleel lu baax a baax ci biir askan bi te laaj na éditeurs yëpp ñu dugg ci mais laal na tamit laaj na tamit formation parce que livre bi pour nga mun a soppali ko ba nit ñi mun ko jàng ci internet bi dafa am ay soppaleek yoo xam ne moom nga koy des te loolu des na ci éditeurs yu bëri. Euh, voilà beneen laaj mooy est-ce que monsieur Sow euh, pour euh, bind livre produire ko publier ko cher na wala cherul d'habitude est-ce que li ngeen si dépenser ci ay koppar dina bëri wala du bëri. mu ngi dépendre d'abord ci ay anam yu bëri mu ngi dépendre ci ban anam nga ko tànn soo tànnee ci imprimerie yu njëkk yi moom la ñuy wax offset. nga xam da ngay ñëw ne dama bëgg junni livre wala dama bëgg téeméer livre génneel ma ko ñoom ñu génneel la ko waaw mais am na léegi imprimerie yu ñëw léegi da ngay taxaw ko man benn livre cote laa mun a génne loolu bële mënu ko dindi mais ñoom mun nañ ko mun nañ la génne benn livre mais bu mujjee bi moo gën a cher mais moo gën a neex parce que amutul livre yooyu denc bu mu yàqu ci say loxo nuy nga koy jaay nga koy génne moo gën a neex mais moo gën a cher mais offset moo gën a oyof parce que ñooy soo ko ne gën a mën nu mu nu mu gën a bare lay prix bi di gën a wàññeeko nu mu gën a bare lay prix bi di wàññeeku soo génnee téeméer livre du bokk prix bi ngay am soo génnee junni livre mais ILP bi moom day gën a cher mais day wàññi dencukaay bi maanaam livre bu yàqu bi ci denc bi donc loolu la te livre bi euh, jafe-jafe mu ngi dépendre d'abord ci anamu livre bi na ban format la am est-ce que dafa tuuti est-ce que dafa mag est-ce que dafa yaatu loolu daf am solo ñaata page la compter est-ce que téeméeri page la est-ce que ñaata téeméeri page la da ciy compter est-ce que livre bi am na couleur wala amul couleur da ciy compter loolu yëpp da ciy compter ñaata nga koy génnee est-ce que 500 exemplaires la wala 1000 exemplaires da ciy compter loolu yëpp nga war a seet pour mun bi lii laa ko mun lii la lii la ma mun a dikkee su ma ko buggee génne. voilà euh, ñu bëri dañu jàpp nii sénégalais yi liiratuñ comme avant est-ce que yow en tant que écrivain da nga koy dëggal waaw wala déet. ma mënu ma ko dëggal parce que pour nga lire il faut nga xam lenn soo ko xamul nan koy liire pour nga jëfandikoo lenn il faut nga xam ne lii kat am na pour nga mun ko jëfandikoo or téere dafa nekk leen loo xam ne ne dafa dafa dafa tumuranke parce que moom melul ni musique musique su amee ñëpp day nga bëgg ko déglu da nga déglu nga bañ koo bëgg dañ nga ko déglu mais livre moom dafa nekk ci am rek toog il faut nga dem ci moom moom du ñëw ci yow te loolu nag pour muy pour nga xam pour nga dem ci moom il faut nga xam ne livre bi mu ngi si or loolu dafa manqué amuñu promotion bu ca war amuñu publicité bu ca war amuñu ay ñu koy waxtaane ba ca war amuñu fu ñu koy waxtaane ba ca war amuñu tamit ñi nga xam ne ñoo koy doxal pour mun a yëkkati livre maanaam lu ñuy wax mécène am ñoo xam ne dañu bëgg livre rek fexe ba livre bi na lay développé ci biir pays bi loolu tamit ci biir ci biir suñu suñu suñu réew loolu tax amuñu ko loolu moo tax mun la wax ne nit ñi duñu lire parce que pour nga lire il faut nga xam ne am na mun loo xam ne ne Aliou Mbada Bèye gën a livre am wala Fodé Dione gën a livre am tant que euh, euh, euh, xamuloo ko mun loo ko jënd il faut nga xam ne kooku génn na ko pour nga mun ko jënd. beneen laaj est-ce que Seydou saw Euh, comme bind livre est-ce que mi ngi leen di dundal comme ni mu waree comme maanaam mu nekk sa métier ngay bind di jaay mu lay dundal décemment est-ce que euh, am na wala amul. xam nga tey ji man ñaari ñaari tama tama la tama laa ñaari boor. éditeur la ak auteur. Mm-hmm. donc euh, mais en tant qu'auteur pour ma répondre la parce que pour man ma mun a am. xaalis ci li may def li ci benn wàllaatu mu ne am mooy ci droit d'auteur or droit d'auteur beneen anam beneen mbir la bu bu bu xaw a difficile parce que droit d'auteur il faut nga nekk euh, euh, bindkat bu xarañ bu ñu ràññee bu ñu xam pour nga am ay dootu am du duur yu dem bi vingt pour cent vingt pour cent lan la mooy euh, téeméer boo jaay am nga ci ñeenti dërëm téeméer boo jaay am nga ci ñeenti dërëm loolu rek mm-hmm. loolu pour nga am loolu il faut nga nekk ku xarañ mais écrivain yu tuuti yi ñu mel ni ñun soo amee ñaari dërëm wala ñetti dërëm ci téeméer bu nekk nga xam ne yow daw nga ba fàtt te loolu pour nga am ko il faut ñu dajale ko fekk at pour nga mun a am lan la lan nga mun a jaay soo amee livre boo xam ne day toog ñetti at pour ñu jaay ko gisa dina am dina jafe pour nga dund ci sa ci sa ci sa ci ci sa xalima da ci jafe lool hmm. donc loolu tamit pour mu il faut nga am lu ñuy wax salon du livre wala nga am trois livres pour nga mun am ay livres ñu jaay su ko defee nga am ci ay droits d'auteur yu ñu jël si waat yow mais day xaw a jafe kon état bi lan la mën a def ci wàllu woowee euh, Seydou Sow. état bi mu ngi ciy def ay jéego yu rafet vraiment ñuy gërëm président bi di gërëm gërëm ministre de la culture Aliou Sow di gërëm tamit directeur du livre bu ñuy wax Ibrahima Lo am nay fonds yoo xam ne état bi def na ko. muy fonds d'aide à l'édition ATA def na ko am na yeneen fonds yu ñuy wax fonds des artistes tamit boo xam ne écrivain bindkat bi ci boppam rek mun a dem foofu jël ci fonds boobu dem di mun a bind livre wala mun a béru pour mun a bind livre am lu ñuy wax résidence d'écriture te fonds d'aide à l'édition day day dimbali éditeurs yi pour ñu mun a gën a génne ay livres livre yi ne ñu génnee ko te livre yi njëg bi du cher loolu fonds d'aide à moo koy dimbali donc état bi mu ci def ay jéego yu am solo te gis état bi yemul foofu état bi day organiser lu ñuy wax salon du livre état bi day organiser bi foire du livre pour mun a gën a jaay livre yi état bi yemul foofu tamit état bi tamit def na lu ñuy wax les grands prix du chef de l' état pour les lettres état da koy joxe nga xam ne ay xaalis dul benn grand prix du chef de l' day am vingt millions xam nga loolu auto bu ñu woo ñu jox la grand prix du chef de l' jox la vingt millions sa sa sa sa sa sa sa sa sa tey sa boutique dafay neex te te te ci ci grand prix du chef de l' yi euh, ren am na ñaari auteur yu mag yoo xam ne ñoom la ñuy ràññee mooy Cheikh Hamidou Kane ak Tata Aminata Fall moom la ñuy ràññee jox leen raaya bu mel noonu donc état bi muy vraiment ci dëgg-dëgg muy jàppale bindkat yi ak éditeurs yi. Euh, dernière question rek euh, en tant que écrivain naka nga gisee livre Cheikh Yérim Seck bi Macky Sall face à bi nga xam ne day def buzz loo si xalaat. mënuma ci wax lu bëri mënuma ci xuus parce que naam am naa ko PDF ci sama biir machine mais yàlla xam ne bu ko lire xëy na ci feet jamono tuuti fekk mu lii liir bi ma mun ci tontu su booba voilà Seydou Sow euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa. disponibilité maa leen maa leen di merci tamit bu baax a baax di jégalu ci wolof bi. <laughs> waaw may fàttali yow yaay secrétaire exécutif bu association des écrivains du Sénégal. ñu lay remercier bu baax a baax merci beaucoup.